jërë ngeen jëf amee téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax baax di leen ñaanal jàmm ju bari te di ko saako ci di ñaan réew di Sénégal yàlla na fi sunu borom dolli jàmm di nuyu sunu kilifa di nekk sunu kilifa aada yi. tey nag ñu dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi mu di El Hadj Mor fas yéene nañu séq ak moom waxtaan parce que daan nañ ko gis ci yenn télévision yi lu ci mel ni 7TV moment yi gisatuñ ko ah, fas yéene nañu séq ak moom waxtaan ci lan la nekk ak jamono ji ah, frère dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waaw Cheikh bi ñu ngi siyaare di la nuyu yow bu baax a baax euh, di nuyu waa People 221 di nuyu internet yi nga xamante ni euh, ñu ngi ñu ngi seetaan. lan si ma njëkkee fan yi ci lan nga nekk gisatuñ la te ñu gis ci télévision yi actuellement nii gisatuñ la ah, lan mooy problème bi. <laughs> ah dara seulement que euh, du ñu wax sax àllarba comme ni ko gars yi di waxee naan jàng boo gis am na àllarba waaye dafa am ci yeneen mbir yoo xamante ni ñu ngi ci. ba euh, tax loolu moom moo tax gisatuñu euh, ñi def émission euh, à la 7TV mais ba tey ñu ngi 7TV. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax 7TV moom kon ma ko waxee rek maa ngi koy wax barki dem Dakar Buzz. Mm-hmm. man leen foofu sama kër la nit du bàyyi këram nag di dem fenn. waaw bu fekkoon ni tey jii nii comme ni gars yi di ruumandaat ci suuf moo ko benn yoon dafa élage moo dafa bàyyi 7TV di ngeen ko gis ci beneen chaîne de télévision parce que maa ngi am pas mal de proposition ni ma koy waxee tout le temps. waaye 7TV sama kër la euh, duma ko bàyyi euh, wala boo xalaatuma ci jamono jii ma toll nii euh, di bàyyi 7TV ndax aw ma fa dara lu ma naqari tamit. Hmm. Hmm. ñu bari sax naan El léegi dafa yëg succès xam nga moo tax mu jàpp ne dépassé na niveau am dépassé na ay 7TV et tout ça. ah non non non El amul benn succès El Hadj ab taalibe la El Hadj ab ndongo daara la donc am na ñoo xamante ni. fi ñu yegg yeggaguma fa li leen suñu borom defal donte ñu ngi sant yàlla ci média élage amagu ko donc te ñoom ñu ngi ci média ba léegi kon donc ñun mënuñu ko passion la passion moom nit ki du ko bàyyi. Mm-hmm. nga mbirum télévision moom euh, defe naa ni passion la ci ñun. waaw bëri na coow bëri na coono euh, trop li ma naan télévision ku ci nekk rek nattu la. Mm-hmm. ñi nekk télévision di seetaan mën nañ seede li may wax gis nga tey micro di wax nattu lay doon ci nit il faut même téléspectateurs yi comprendre loolu waaw nit ki da koy bëgg mu nekk nattoom. waaye du lenn loo xamante ni sax wax fa dëgg yàlla bu may wax lu ci nit di am man personnellement dama naan xanaa bonheur gi la maanaam di am mbégte ak contentement te micro hmm. di wax waaye bu weesoo loolu moom euh, mooy loolu. <laughs> kon bientôt mën nañ la xaaraat sa retour biir seen biir sa TV. mais bien pourquoi pas man doom yi may mun na dur fay laa may mun a sama yaay la. set TV ay yaay rek laa fa am ak ay papa ak ay mag. Hmm. waaw doom may mun a nduur laa. Hmm. sama yaay jooju ma koy ñaanal jàmm. Euh, d'après loolu nag ñu ñëw waxtaan ci li nga xamante ni mooy actualité. Mhm. naka nga gisee kii di Ousmane Sonko révélation bi mu def ci politique durant bi mu ci ñëwee nga gis ni bëriwul ñuy fal président fii Sénégal coow yëpp am ci pendant trois ans wala deux ans naka nga gisee euh, taxawaayu Ousmane Sonko. waaw euh, Ousmane Sonko man wax fa dëgg yàlla kilifa gu ma respecté la kilifa gu ma jox cër la am na loo xamante ni li war a naan lekketu kase naxutuy bay te sunu borom du ko jox n'importe kii li mu am nii ci réew mi ku nekk war na koo jox cër même bu dul sax jëmm ji mais nga respecté sénégalais yi nga xamante ni tam topp nañ ko waaw donc wax fa dëgg yàlla euh, aw ma dara loo xamante ni euh, gis naa ko. ñu gis pendant bi mu ñëwee ci géopolitique bi ba tey coow li bari chaque jour nga xëy presse bi télévision yi pendant deux ans ba trois ans heure bu ñu xëyee ci moom lañuy ñuy débat lu waral loolu. waaw mais euh, lu waral gars yi di coow ci Ousmane Sonko mais ku boot bukki xaj baw la loolu rek la amul leneen am na yeneen politiciens yu fi nekk kenn coow leen. Mhm. mais dañu gis ni est-ce que nekkul aussi tamit yenn adversaire mi nga xam ne war na jàkkaarloo ak ñoom parce que daan nañ gis président bu ne jaar na fi ah mais mosuñu gis polémique yi ak coow lii nii ba ay mort di ci am waaw xam nga loolu moom pour ay moo rek loolu yàgg na ci Sénégal je pense que ni euh, Macky Sall président Macky Sall avant muy falu euh, gisoon nañ fi euh, ay nit ñu ñàkkoon seen bakkan ci ay manifestations yu amoon alors ñu leen di rendre hommage bu baax ku ci mel ni Mamadou Diop et autres donc loolu moom place de l'obélisque ay nit yàgg nañ faa ñàkk seen bakkan xëy na nag comme on dit li yi di wax naan événement mois de mars ñii naan événement Ousmane Sonko. da cee da cee da cee da cee da cee dafa ëpp maanaam cest à dafa lim bi dafa dafa gën a takku waaye ñi yàgg ñi ñàkk seen bakkan moom yàgg nañ um, yàgg nañ ci Sénégal ci politique. Mhm. Ousmane Sonko ak ndaw ñi ko topp mbooloo mi ko topp euh, lan nga jàpp ni moo tax mbooloo mi topp ko aussi tamit am ci moom yaakaar. waaw li waral mbooloo mi topp Ousmane Sonko <laughs> non loolu xanaa dañ koy laaj mbooloo mi mais xam nga lenn daal laa xam mooy. Euh, suñu borom moo ko njëkk wax lakum diinukum waliya diin loolu ci diine la am waaye mën nañ ko attee ci yeneen i atte mooy nit ki moom euh, depuis ginnaaw jamono yonent bi muy jamonoy xare am na loo xam te nit ki mën nga ko bàyyi mu tànn li mu bëgg tànn bu dëppoowee ak diine ñun ci sunu diine bokk waaw bu weesoo bu weesoo loolu euh, nit ki mën ngeen bañ a bokk gis-gis mu am beneen gis-gis boo xamante ni bu fekkee dëppoowul ak diine am na lu ci sunu borom wax am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy xadis bi yonent bi di wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' mooy nit ki nga xamante ni mi ngi def loo xamante ni euh, nekk na lu ñaaw ci diine que ce melokaanam wala ay waxam wala ay jëfam yonent bi sallallahu alayhi wasallam na kooku na nga ko naqarlu maanaam na nga ko na ko jéem a ak sa loxo boo ko mënul dindi ak sa loxo na nga ko dindi ak sa làmmiñ boo ko ak sa làmmiñ nga naqarlu ko loolu bokk na ci jaamu yàlla waxi yonent bi la Euh, donc bu weesoo loolu nit ki am na sañ-sañu am na droit euh, doon li mu bëgg a doon bu fekkee dëppoo ak diineem waaye ànd ak ku mu bëgg a àndal kon donc képp ku ànd ak Ousmane Sonko euh, mi ngi ci yoon parce que ànd na ak ki nga xamante ne moom moo ko doy képp ku ànd ak président Macky Sall aussi mi ngi ci yoon. Mhm. maa ngi dégg léegi say biir wax nga ni nit bu gisee lu ko naqari am na droit manifester wu Mm-hmm. ci ni ko lislaam waxee. Mm-hmm. est-ce que nekkul looloo waral Ousmane Sonko génnee moo garsa garsa jàpp na ni am na lu bare loo xam ne naqari na ko ci réew mi. waaw xam nga moom li mu jàpp que ni du yoon ci côté boobu ci diine sax da ciy am ci diine laa wax parfois nga gis ay imam yoo xamante ni duñu d'accord ci benn mbir loolu dafay am euh, moom li muy jàpp ni loolu euh, du yoon keneen mën na taxaw jàpp ni loolu yoon la waaye lu mu ci mënti doon rek. maanaam maturité ak esprit de dépassement kon ko esprit de dépassement comme ni ko waxee tout le temps cest à laay man yow mën nañ bañ a d'accord ci benn affaire nga gëm li nga gëm ma gëm li ma gëm waaye nañu respectante dañuy fexe ba bu ñu jàllante yi baat waaw surtout loolu dama koy wax ak la jeunesse séné la jeunesse sénégalaise man maa gën a tuuti ci ndaw ñi maa gën a doyadi euh, maa gën a xeebu ci jaamu yàlla yi mën naa wax loolu waaye li may wax tout le rek damay ñaan suñu borom lépp lu may génne mu nekk ay kaddu dëgg waaye mu nekk donte sax sunu borom moom moom moo xam dëgg ndax parfois nga jàpp ni dëgg gi wax nga ko mu nekk dëgg te fekk dëgg lay doon ci yow waaye mën na bañ doon nit ñi mën nañ ko mën na bañ a doon dëgg ci ñoom comprendre nga waaye lu mu ci mënti doon rek rafetal da cee da cee am solo. moo mhm. gàtt sa gàtt sa boobu est que jàppoon ni tamit day influencer jeunesse bi ba ñuy def na ko su dul noonu. waaw moo gàtt sa gàtt sa bi xam nga mooy li ma waxoon rek sama benn vidéo euh, Euh, nañ joxe suñu bakkan nañu rayante euh, man personnellement man ànduma ci ak moom parce que Sénégal dafa am nu ñu ko tëggee depuis 1960 ab euh, Léopold Sédar Senghor jaar na fi Abdou Diouf président Abdou Diouf aussi jaar na fi président Abdoulaye Wade jaar na fi président Macky Sall mi fi nekk au moment actuel tam gis nañ tamit ni muy déroulé politique am Euh, certes que nag yàgg nañu dégg ci ay politiciens nañu wàcc ci tali bi nañu wàcc xeex mais li may wax tout rek jamono jooju bi ñu ko fekkee woon tamit taxawaay bi ñu am moom la ñuy am mooy man du ma sant benn sama benn moroom wàcc ci tali bi di xeex maanaam xeex goo xamante ni da ko jaratul pourquoi ma ni jaratu ko moment bi ñuy waxee gatsa gatsa le président Macky Sall un moo ko fi dese matu ko sax matul at kon donc bu fekkee def nañ une forte mobilisation. jóg en masse dem vote ji am na loo xam te ni dëgg moom defe naa ni euh, mooy mooy mujj. est que jàpp ni aussi tamit président li muy annoncé lii di troisième mandat moo tax mu ni kii période pour jógee fi nañ jàkkaarloog moom moo tax mu mën fay jógee. waaw nañ jàmmaarloog pour mën fee jógee waaw ba tey xam nga tamit euh, len dafa am moom mooy euh, man personnellement dégguma président Macky Sall wax ni dafay def troisième mandat. Mhm. xam nga loolu tamit c'est très important. Mhm. waaw man personnellement dégguma président Macky Sall wax dafa xam nga tey man di metti pression état boo xam te ni mi ngi fi ngay wax jeexalam te jeexalagul ndax tam il faut ñu comprendre que ni euh, ki fi suñu borom teg dañ ko ko nangul comme ni maanaam ku nangul Ousmane Sonko dafa bari mbooloo kat ah defe naa ni yow dëkkoo ci réew mi. Mhm. waaw ñi dëkkul ci réew mi sax xam ne loolu ndax gis nañ barki démb euh, waa France 24 je ne sais pas waa TV5 xamatuma kan moo ko mujj defal benn émission. Mhm. donc loolu moom euh, kenn weranteetu ko. Mhm. kon donc nañu nangul ki fi nekk ni moment bi moom moo fi nekk nañ ko xaar ba moment bi muy wax maanaam ay waxam di soppiku laa su boobaa nag ñu xool El Hadji wala keneen ak keneen lan mooy nekk ay taxawaayam waaye fi ñu toll nii au moment actuel euh, man personnellement mooy li ñuy wax naan gat sa gat sa pour mu jóge fi mhm. euh, di woote loo xamante ni maanaam nit ñi seen xool yaa ngi ko yëngal di leen di leen maanaam ñuy préparé wu. pour révolter wu di préparer wu pour euh, pour pour pour pour wàcc ci kaw tali bi xeex. jàpp naa ne li ma waxoon barki démb rek. Euh, ci aay bi suñu borom di wax naan wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa fitna mi ngi nelaw te yàlla rëbb na ko koy yee. lépp war nañ ko mën a waxtaanee. Ousmane Sonko bu suñu borom tuddee ni dafay nekk président billahi wallahi watallaahi benn mbindeef mënu ci salaamaaleykum. est que laay dégg nga ma. li suñu borom tudd ci nit. ala xaal dafay am. kenn mënu ci dara. le président Macky Sall falom bi war na doy sénégalais yu baree baree baree baree bari. Hmm. maanaam suñu boroom noppi na démb tey soo koy ñëw ñu ñëw fi nekk di coow di def ay ay mbir donte jàmm nag sabab la ci ay euh, ci ay mbiram. Hmm. waaye bu suñu borom tuddee ni dafay falu kenn mënu ci dara. Hmm. waaye man li may dàq mooy bakkan yi nga xamante ndax ñëpp xam nañ jàmmaarloo bu amee ci mbooloo bu toll nii nga xamante ni ñoom ñoo topp ci Ousmane Sonko. fas yéene jubal ci armée bi. foo jaar di nga dégg ay bakkan yu rot. ci loolu sax mu ngi woote ni nañu résister loolu noonu tamit est-ce que du ko a influencer ndaw ñi. waaw mooy le moo résistance bi aussi. Mm-hmm. mooy le moo résistance bi c'est-à-dire euh, man personnellement man tuuti naa lool nag pour jox leen conseil. Mm-hmm. encore une fois dama koy wax pour ñi nga xamante ne dañuy wax man jàmm xeebu laa waaw waaye nag jàpp naa ni war naa mën a wax sama xalaat ci réew mi parce que tam yoruma quarante malien hmm. je suis sénégalais. Hmm. je suis sénégalais et sama dëkk rek laa bëgg en tant que jeune. li hmm. ma koy waxee tout le temps que damay bëgg di nekk à tout moment un jeune engagé. voilà seet ka nag cool yi nag mën na bari. li wax naan Sénégal moo nekk dëkk bu naqaree waxee. mën nañu bañal El Hadji Mor ñu nangul yeneen influenceur parce que influenceurs yooyu day wax lu leen arrangé. déedéet àdduna du noonu. lépp loo mënta gis dangeen di waxtaan da di maslaa rawatina sax waxuma sax waxuma sax jullit mais nit ak moroomu nitam dangay ngay maslaa mm-hmm. nit ak moroomu nitam da ngay rafetal waaw bu fekkee ni tamit ni ñu koy waxee naan ma leen koy wax tout le temps bu fekkee ni nit def na ma loo xamante ni metti na ma li jiitu mooy dama koy jéem a muñ ndax suñu borom moo ni inna allaha ma sabirin maa ngi ànd ak waaye muñi bu fekkee ni nag dem naa ba mënatuma muñ waaw dinaa ko xeex xeex goo xam te damay utiliser sama xel ak li ma sama diine may mais pas que may utiliser force ak xadar ndax bu boobaa li may yàq dootuma ko mën defar ñi ñàkk seen bakkan mënatuñu dundaat déedéet. est-ce que nekkul looloo tax sax euh, ñi nga xam ne dañoo ànd ak Sonko mayetul nit ñi sax liberté bu ñu mën a bu ñu bu ñu bu ñu mën a dundee dund carrément. loolu mooy li ma metti nag. Mhm. question boobu. c'est-à-dire ku àndul ak Ousmane Sonko. Mhm. doo nekkee ci jàmm. loolu tey damay seetaan benn waay eh, dama koy wax fii. Mm ma koy seetaan ci TikTok bi damay defuleew bay am ci. Euh, waa ji war naa ko ki nga àndal muy Idi. Mm ji dafa doon wax ci sëriñ mun Mm -hmm. ñu ñaan suñu borom gën a gën ko fay yàggal. mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Eh, page moo nekk nii. Mhm. xam nga li Philippe pas mi ngi nii. waa ji kenn sëriñ Muntaxa bëggu la tant que réew mi du la bëgg loolu damaa bëgg mu leer waaw ngeen baal ma sax ci li ma ko teg ndax am na ci ay kàddu yoom te ne waa ji wax na ko bëgguma mhm. ci yegg dama doon defule bayam ci waaj mhm. waa ji wax ay kàddu yu ñaaw sëriñ Muntaxa <laughs> man ci laa ni nag léegi ku ñu saagaate bu la metti mhm. waa ji usmaan Sonko la doon waxal naan ko sëñ bi nangam sëñ bi nangam. ñi ëpp wala boog benn parti ci ñi ànd ak moom noonu la ñuy mel te gis nga parfois damay wax tout le gis nga benn nit dina def jëf joo xamante ni mën nga ko mere ba mere waale ki mu àndal. Mm-hmm. man waa ji li mu wax nii man waa ji ku mu àndal du ma ànd yow déedéet. Mm-hmm. parce que joxul benn cër sunu ay kilifa. Mm-hmm. joxul benn worma sunu ay kilifa. il faut am na loo xamante ni tam c'est très important gis nga li may wax tout le temps rek gis nga nit laay da ngay am kilifa. nit da ngay am kilifa. yal nañu yàlla def ñu nekk ay nit kilifa. kilifa ci biir kër gi. muy muy borom kër gi que ce soit muy sa papa wala sa nijaay. mooy li may wax tout le temps mooy ki la naan bàyyil ngay bàyyi. jàppal ngay jàpp ci bu dëppoowee ak lu suñu borom ànd. ki nga xamante ne tey naa mën na juum nag. ndax nit la. te amul nit ku dul juum. waaye ki nga xamante ne boo nee bay def boo ko sóoree. Euh, sa xel dem mooy li naan parfois nit dina njool lool ba doo ko mën a tëb. kon li muy def nii da jàpp ni arrangement Ousmane Sonko waa ji du arrangement Ousmane maanaam tey am na ñoo xamante ne am na yenn comportement yi ñuy am surtout ci réseaux sociaux yi mooy ñiy toog di wax di saaga wala ñiy def ay menaces parce que man personnellement maa ngi jot ay menaces mhm. waaw ci télé laay waxee maa ngi jot ay menaces. jot mhm. naa sama téléphone fii. yow naa sama téléphone ay message yoo xamante ni. Mhm. ay nit ñoo ma message di ma menacé. lan nga jàpp ne moo tax ñu lay menacé. ci numéro Ousmane Sonko ni euh, Euh, profil Ousmane Sonko la. Mhm. xaw ma ko. Mhm. numéro bi 77 806 32 jëru may yeggale. lan nga jàpp moo tax ñu lay menacé. am na yeneen ñaari numéro Tigo yoo xam te ne tam xaw ma fu ñu jëlee sama numéro. Mhm. message nañ ma di ma menacé. message yaay dama ko def capture. barki alquran. lu waral menace bi. waaw parce que def vidéo rek maanaam euh, di sensibiliser jeunes yi comme ni ma ko waxee que ni. Euh, nit ki moom. Euh, <laughs> defe naa ne àdduna noon la. Hmm. da ngeen di waxtaan di laabirante. Hmm. man bu fekkee ni laay nekk nga ci loo xam te jàpp naa ni waroo cee nekk. bu fekkee ni man nit laa bu fekkee ni man jullit laa bu fekkee nit ku ñàkk ñaan laa war naa mën a ñëw waxtaan ak yow ci jàmm ak salaam mais ci njëkk ak teraanga mais ci respect. dama lépp lu may damay koy dama koy wax ci respect lépp lu may wax dama koy wax ci yar ak teggin ak dal ak tey parce que ci loolu lañ ma yar. mais bu fekkee dama taxaw. Hmm. ni kat xaaral ma wax ak jeunes yi nga xamante ni tey kat. Euh, jàpp naa ni war naa wax ak ñoom donte ni ma ko waxee encore une fois dama koy répété gënumaa yeewu kenn gënumaa muus kenn doomi néew di doole laa encore une fois gëwma lu dul sama bopp ginnaaw ndimbalu yàlla ak sama ñaanu ñaari waajur jaam bu xeebu laa jaam bu doy di laa waaye ma jàpp ni kat ni ma koy waxee que ni je suis sénégalais kon donc war naa mën a wax ak samay moroom ah donc bu fekkee ni wax naa ak ñoom ni leen kat man de du ma ànd ak kenn ku naa ma wàccal nga xeexal ma benn politicien sama vidéo yi yi ci ëpp amul benn bu may tudd tur waaw mais ma fi jar donc di def ay menaces ak ay saaga ak des choses comme ça. ma jàpp ne loolu mën na ñàkk. kon da nga li ngay wax moo leen arrangé wul moo tax ñu lay menacé. waaw mu arrangé wu leen c'est-à-dire man comprendre arrangement foofu. nit ki da nga koy bàyyi mu gëm ni ñoom li ñuy wax man arrangé wu ma. saagawu ma leen menacé wu ma leen. man am na ñoom tamit maa ngi ànd ak ñoom subaa ngoon gu subaa ngoon guddeeg bëccëg. Ousmane Sonko moo nekk seen biir xol moom lañ bëgg. Mm-hmm. te dañuy nekk ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. kon donc le pourquoi yeneen sénégalais yi nga xamante ni dañuy créer ay faux comptes di saaga dañuy jënd ay plus parce que man xam naa pourquoi maa ngi ko expliqué sànq tey suba mm-hmm. sama benn xarit euh, sama benn xarit mayam foofu moo koy wax ni ko ma koy wax menace yi mën naa ma porter plainte. man ko mais yii numéro yi boo ci wootee sax du jàll. maanaam kuy jënd puce menacé la saaga la. wala mu woo la wax la benn affaire. day hmm. pare damb plus bi sànni parce que les gars yi yeewu nañ. waaw hmm. et ak ay messages yoom tamit la koy message ay ci sa Facebook ci sa Instagram ci sa TikTok waaw. d' mais ci foofu noonu est ce que tiitoo que ni lii di ñëw ëllëg ndaw ñi bu demee ba toolu foofu nga xam ne loo waxtu ne Ousmane Sonko dem nañ ba dañ ko utal tur muy Seydina Ousmane lépp la wax ci moom. lu dul loolu ñu menacé la naka def la naka surul noonu est-ce que est-ce que lii nga xam ne mooy ñëw ëllëg. waaw xam nga loolu lan laa ciy tiit. Euh, li ma ci tiit mooy maanaam li ma wax sama benn vidéo rek mooy nit ki bu demee ba kersa wala ba yar wala ba dal euh, wala ba yenn euh, qualité yu baax yi ne yi nekk ci nit bu dañee ci moom nit ki dootul am teggin ci kenn mm-hmm. léegi ñàkk teggin googu mooy am na loo xamante ne am na ñoo xamante ni mënuñu toroxal seen moroom ma la ku leen féete mag mm-hmm. te ñu ngi jëm ci réew moo xamante ni man en tant que jeune commençant que ci man mi joxatuñ kenn cër Mm-hmm. ñëpp lañuy ñuy saaga ku waxul lu la arrangé ñu saaga la mm-hmm. ñëpp la ñuy toroxal mm-hmm. ñëpp la ñuy xawi seen sutura loolu nag jar naa tiit te loolu moom mooy dem ba fekk si tamit jeunesse bi bon comme ni ñu koy waxee xëy na dañoo maar xëy na dañoo sonn waaye lu mu ci mënti doon rek ñàkk bu mu la teree ñànki bu mu la tax bu mu la bu mu tax tamit ngay loo koo xamante ni utiliser sa xel suñu borom sax bu yow borom xel yi laay waxal. nga bëgg taxaw di xeex ak sa frère policier bi ngay taxaw di ko sànni xeer sa frère la policier bi population mi sànni frère euh, lacrymogène mi ngi koy sànni ay frère mm-hmm. ngeen bëgg a taxaw di dóorante mm-hmm. ngeen bëgg taxaw di rayante mm-hmm. pour lan d'accord tey loolu mooy indi tey li mu wax que ni euh, bu jëkk da nga gis ramasse ngeen daw yéen ñëpp kii policier la danga koy ragal c'est que nag policier kenn du ko ragal waaye dañ koy jox cër waaye manque de respect total ngay gis maintenant sénégalais yi taxaw population bi taxaw armée bi di dóor population bi di dóor ma teg ci ni gis nga loolu noonu président bu ci jël réew mi war ngaa tiit saa su nekk ndax population bu demee ba ñemee armée at tout moment mën nañ fekk président Macky Sall bu du woon armee bi ak ndimbalu suñu borom xëy na ba léegi gars génne nañ ko mm-hmm. mais bu ñu demee tey ba gars yi gën a am fit gën a am sañ-sañ. dootul nekk problème ci ñëw parce que génn nañ génnaat jàmmaarloo ak armée bi mais kon donc président bu toog bu defee benn erreur na nit mënul nit ku dul juum amul duñ ko pardon dañ koy fekk ca palais ba génn ko mais boobaa kon kenn la réew mi di baax kenn la ñuy nekk ci jàmm. accord ci foofu noonu laay ñëw ci li nga xamante ni moo di procès Ousmane Sonko bi mu war a dem euh, procès bi biñ ko jàppee ban jàngat nga ci am. awma ci benn jàngat pour affaire procès bi. Mhm. awma ci benn jàngat parce que encore une fois il faut ji leer. man El Hadj Umar waxuma benn yoon que ni Ousmane Sonko def na deful dem na demul sama yoon new ci waaye appel à l'insurrection bi fitna gi nga xam te man maa koy dégg man muy wax. Mhm. wax joo xam te ne ku ko dégg rek sa xol mën na jóg ànduma ceeg moom. kon da jàpp ni moom violence yëpp moom moo ci woo ndaw ñi. waaw loolu laa jàpp fa dëgg yàlla parce que kilifa la te kilifa ci kër par exemple man sama papa toll na ma foo xamante ni man sama papa. Euh, am na ci li may wax naan kilifa del mooy day moytu di mer. Mhm. nay moytu di mer nay moytu di wax parfois sa kilifa dina mer mhm. njabootam ñëw mu xaw a am lu mu def. Mhm. xam nga ngir bëgg jàmm ndax am na loo xamante bu ko wanee rek njabootam mën nañ dem attaqué ki nga xamante ni moom la joteel. te bu fekkee ni ku am mbooloo rek euh, bu justice dalee sa kaw ndax wóoruma mais damay jox exemple bu fekkee ni ku am euh, mbooloo rek bu justice dalee sa kaw sa mbooloo génn. état bi noonu ñu bàyyi mais kon dëkk bi du defaru d'accord mais naka nga gisee lomotif yi nga xamante ni génn na barki démb bu indi coow lu bare bare est-ce nekkul tamit yooyu noonu mooy gën a influencer ndaw ñi ba da ngay gis ñu naan suñu fekkoon Sonko sax mu tëdd ak jigéen nii ñun moom la ñu bëgg nga gis chaque jour bu ñu xëyee euh, yenn influenceurs yi ñu ngi gën a génnee ay ayewu Sonko comme lomotif yooyu nga xam ne génn na barki démb waaw xam nga mbirum lomotif ak mbirum audio ak mbirum video Sénégal maanaam astafla adduna bi dafa toll ci technologie bi dafa avancé avancé goo xam ne léegi ak montage yi euh, laaj na ku nekk na nga na nga vigilant. Mm-hmm. voilà mais li may wax tout le temps rek kat yi nit ki moom li nga gëm ak ki nga gëm euh, jàpp naa ni du ay photo wala ay video moom mooy tax nga nga nga nga nga je mooy tax nga nga bàyyi ko ci li ma jàpp mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Mawla mi nga xamante ni moo génnee loolu est-ce tamit jàppoon ni li mu loolu mu def noonu day ñëw pour yee fitna parce que am nañu naan dañ ko jox deux milliards deux cent cinquante millions et tout waaw euh, ku mel ni Mawla Morgan li ma waxoon ci aadamoo rek moom laa ay waxaat moom mooy ñu mel noonu maanaam man mënuma comprendre nan leen ay nit di seetaanee waaw. Mm-hmm. fa dëgg yàlla parce que man waxuma ay Mawla mu génn ay vidéo Ousmane Sonko wala ay audio Ousmane Sonko mais damay tant que Mawla Morgan. nit ko xam taxaw nga dagg ay saaga ndey publiquement mm-hmm. yow kilifa gu nekk nga saaga ko mm-hmm. kilifa yi ay nit lañ mm-hmm. naam loolu kenn weddiwu ko dañuy juum mais ngay xaw ay sutura comme exemple li mu wax euh, Marème fay Sall dama ni sama vidéo waxuma Marème fay en tant que soxna président mais Marème fay en tant que yaay Marème fay en tant que jigéen nga taxaw maanaam yow loo ko loo ko yàq rek mais loolu Mollah dafa dafa dafa dafa saaga jigéen ñëpp am na ci jëf yoon xam ne bu ko nit jëfee defu ko benn nit mais jigéen ñëpp la toroxal mu jóge ci loolu dégg nga baat yu ñaaw yu mu wax sëriñ Abdou Karim borom makaarimal axlaaq ak yeneen kilifa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc kooku tey am na ci jikko yoo xamante ne bu nekkee ci nit man dootuma mën a déglu sa dara li ma wax nag sama vidéo barki dem moom mooy moo laa am na ci ay nit ñu ma doon gis mu leen di yàq hmm. ñu nekk ci gouvernement bi ma gis ay nit ñoom tamit dañ ko doon dooleel di partager vidéo yooyu. nit ñooñu ma gisaat leen ñu taxaw bi Mollah barki dem mu génnee ay photo Ousmane Sonko. ñoo ñu taxaw ni Mollah dafa màndi. ñii dañ koo jox xaalis. ñii ni dafa dof. man leen ah yéen kat yéen bëgg a jaaxal. pourtant Mollah bi muy def lii man dama taxaw ni leen kat lii du yoon. man damay ànd ak ñoo xamante ni dañoo bëgg Ousmane Sonko ci seen biir xol. man leen kat ñoom ñoo ëpp taxaw sama def vidéo man leen yéen. ah déet li ngeen di def nii moom ànduma ci. ndax démb da ngeen taxaw ngeen di défendre Mollah di partager ay photos. Mhm. di partager ay vidéos ku mu yàq ngeen taxaw di ko encourager. Mhm. tey mu taxaw def lii ngeen ni nangam sànq di ko wutal lay. Mhm. noonu noonu nit ku baax du mel noonu nitu dëgg dëgg waxi démbam day méngoo ak kii waxi tayam. waaye nag yàqkat moom lu mu mënti doon doon yàqkat. te nañu xaar peut am na yeneen yu gën a pire yoo xamante ni. mi ngi ñëw. non à nos grandes surprises sànq ñu ngi gis mu génn def benn live ni moom mu ngi jégalu ci vidéo yi nga xam ne jot na ko. waaw mooy gis nga gis nga loolu lépp mooy xam nga mooy lan mooy nit ku conscient wul. Mhm. nit ku conscient wul lépp maanaam bu bu waru am surprise. Mhm. Mhm. mais mooy li ma waxoon un jour rek ci Adama. cest à nit koo xamante ni euh, yaa ngi def yenn jëf yi kooku nañu xaal vraiment di nga dem ba euh, xaw yi sa sutura bopp sax même di nga ko xaw yi te doo ko tay mais mais ci kaw loolu ma question boo xam ne xaw na ma jaaxal mooy lan lan moo tax nga gis sénégalais yi euh, Sénégal ni mu toll li fi nekk ci ay kilifa nga gis trois personnes ñoo koy manipuler Mollah Soko Adamo loolu noonu est-ce que du sunu du sunu du sunu cuune aussi ak kilifa yi nekk seen ginnaaw di leen dooleel. waaw xam nga léegi loolu ak ci la faute ngay wax c'est les parents gis nga problème bi am ci àddina bi yëpp Sénégal du moins parents yi dañ ci am pa de responsabilité. sa doom war nga ko maanaam waxuma ni man damaa yaru déedéet waaye dama jàpp ni man euh, je suis de famille mm-hmm. ndax suñu borom dénk na ma njaboot. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. mais dama jàpp ni war nga mën a yar sa njaboot yarin goo xamante ni seet ka nag am na ci loo xamante ni doo ko mën a contrôler ba képp ku muy suivre wala ma dinaa dinaa dinaa la teg ci yoon boo xamante ni. yow di nga xam ñi ngay seetaan ak ñi nga dul seetaan am na kër yoo xamante ni Mollah du fa takk Adamo du fa tàkk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. duñ fa tàkk. am na kër yoo xamante ni xale yi bu ñu demee bay teg seen tànk ci biti di génn bu ñu xalaatee sama pap wala sama yaay dañuy duggaat ak nu ñu mënti toll. man sunu kër may caat mais sunu taaw sax laa sunu taaw du def dara te yëgowul ak sunu waajur. du du nag eh, sunu njàmbaate mais loolu ndimbalu sunu borom la loolu laa mën a jàpp donc côté boobu nag ci parent yi gën a yaraat seen doom yi seen ay responsabilités à ngay def ci sa doom loo xam te ne da déggal boo ko nee toogal mu toog boo ko nee bàyyil mu bàyyi am na éducation boo def ci moom dina am dina am dina jomb di seetaan yenn nit ñi ba ñooñu di ko manipuler waxuma sax ay ñooñu noonu nekk ci réseaux sociaux yi ma naan Sénégal dañuy promouvoir médiocrité waxuma ñooñu sax euh, mais ba ci ba ci ba ci ba ci folklore bi maanaam ci mbirum euh, ci mbirum ci mbirum showbiz bi nga xamante ne tey léegi yàqu na ba ci mbirum sëriñ su bees yi nga ni bari nañ léegi nga xam te jóg rek woote te ku woote ñu topp la. donc loolu tamit da ciy da ciy da ciy joué maanaam nit koo xamante ni nit ku mat nit koo xamante ni am nga une bonne éducation fëkk du la yóbbu du ku ñëw woote nga topp ko du képp ku xew bees jommal la du xaalis moo fëkk wala moo yóbbu wala moo jënd mais loolu lépp ci éducation la. nu borom sax am nay jaam yoo xamante ne ànduñu ci ay dogalam moom mi nga xamante ne moo sàkk ñëpp kon donc képp koo xam ni neex nga ñëpp ka ngay kilifa ka ngay politicien ka ngay influenceur ah loolu sax dafa amul far. est que ñàkk a neex ñàkk a neex ñëpp boobu moo waraloon fan yee passé Siteu ku ne gis na tamit daan na def ay social di créer ay ay ay ay ndaw yuy liggéey. Mhm. ñu ngi Siteu génn ñu bari aussi tamit attaqué ko ba yow nga génn sax di ko plaidel ñu commencé di la ci menacé. waa Siteu plaidelu ma ko. Mhm. man plaidelu ma Siteu mais euh, li mu wax Siteu moom mooy dama ne ko euh, Baye Fall bi yaa ngi ci dëkk boo xamante ne boo bañee ñu saaga la doo wax dëkk. yaa ngi ci dëkk boo xam te ne boo bañee ñu la tête vide yemal ci sa bëre doo wax dëgg te loolu mooy dëgg Sénégal noonu la tëddee léegi. loolu kenn du ko weddi. Sénégal boo xel leen arrangé. bravo jàmbaar nga gaynde nga mooy li ma ne Siteu tey bañal nañ ko nangul kiw mbiis Sénégal moo tëddee noonu bu subaa moo tax ma ne ko ku ñu solal tubéy ngemm laa ngi lay xaar. Mollah Morgun mi ñu fal démb tey weddi nañ ko. Mhm. loolu xam nañ ko ci Sénégal. Mhm. loolu moo tax li ngay nekk nekk ci te nga gëm ko. ma tegal ko ci ni ko baay Fall bi bi ngay jëndal ay waa jàmm gën ay moto pompe comme célébrité yëpp ni koy defee te loolu mooy rôlu célébrité loolu mooy rôlu nit koo xamante ni porteur de voix nga ambassadeur nga fi nga dëkk man ko kenn fekk siku la boo yi dëkk jàmm gan bu ñu amee jafe-jafe niñ ciy sonnee di ci taxaw kenn fekk siwu la kon donc ñi lay xarab nañ jéem a def li nga def loolu mooy li am solo. d' accord mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité tey vraiment may jégalu jël naa sa temps ci lu bari. amul solo mais fii moom sa kër la. Mhm. Euh, vraiment kontaan naa ci dalal bi aussi tamit. Mhm. tey sa mot de la fin ci émission bi. waaw euh, di kontaan bu baax a baax euh, ci ci émission bi di jéggalu parce que nekkul lu ma préparé beneen bi mooy ngeen baal ma waaye fekk ngeen ma ci moment bu xaw a difficile pression bi. Mhm. ak stress bi. liggéey bi xam nga. di wut fukk juróom tëñu comme ni ñu koy waxee ah donc euh, nekk lu ñu préparé baax mais bëgg nañ di ko di ko di ko di ko ñaan di leen ko sàkk aussi beneen waxtu woo xamante ni dinañu fekk ñu gën a ñu gën a nekk daal ñu def émission bu neex ruube mhm. ambiance. Mhm. mu ngi noonu neex na trop nag vraiment mu nekk disponible aussi tamit. bu mhm. bërëbu liggéeyukaayam nañ ko jëlee takkal ko pot. <laughs> jiital ko vraiment mu nangul ñu ko aussi tamit. ma lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ci ci liggéey bi mhm. mu ngi noonu di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf